asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy suivre à travers des spots médias amati nañu mbégte jàkkaarloowaat ak na fële ca TFM kii li nga xamante ne moom moo ko boolee ak waa TFM du lenn rek lu bi mu génnee ngàññ li nga xamante ne moom mooy oustaz yi depuis rek ma ngay am ay problème fële ca émission boobu ñuy wax Kouthia Show ci noonee la ñu xamal ne aussi moom du animateur waaye artiste libre ci bataaxal boobu rek nga xamante ne bind na ko ba nga tey wax ni que après dix ans de TFM Cheikh Fall je suis dans l'obligation de quitter le groupe en tant que média je suis pas un animateur on est bàyyi il est indépendant mais depuis le propos en français soit disant oustaz je suis pas un transhumant médiatique j'ai toujours resté fidèle mais dara nag tey la neex ñu bari waaye Allah le Tout-Puissant et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont témoins de ma fidélité Cheikh Fall reste à l'écoute devant moi te ci bataaxal boobu rek nga xamante ne ci li nga xamante ne def na ko ci sa TFM Cher Fall je suis dans l'obligation de lister le groupe pas médiatique j'ai toujours resté fidèle mais dara nag tey la neex ñu Allah le Tout-Puissant et son prophète Mohammed sallallahu alayhi de ma fidélité Cher Fall restez à l'écoute Dieu va m'orienter sous peu loolu lekk la euh, Kouthia daat bi xamal ci li nga xamante ne def na ko ci statut Instagram lii lañu indiloon tey ci seen biir rubrique li xew ci réseau yi di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen numéro di leen wax ngeen daw abonné ci seen chaîne bi di DS Prod Media et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification di ngeen jot ay leeral fii ci Sénégal ak bitim réew